ne ko mu est-ce que c'est pas cette méfiance ou bien ce manque de confiance entre le justiciable et le le le le législateur mm-hmm. wala plutôt euh, juge bi moom moo moom indi loolu bon xam nga li ngeen di wax nii xam nga tax ngeen ko mm-hmm. le doute là ak le manque de confiance bi ngeen am ci justice bi mm-hmm. fu mu ci politiciens chaque jour que jëfee tribunal ma ngay juge ay nit di condamner, ñi di jox pourtant kenn du ci wax

tel entité par exemple ñu ni conseil constitutionnel ci seen i wax naan waaw conseil constitutionnel bi ñoo fa nekk président Macky Sall moo leen fa def loo fa yóbbu dañ koy bàyyi mu jàllal dañ ko wax ci ñoom di ko wax ci waaw ah pour quelle bu defee un rapport am président bi teg ci kuddam ah nangam ak nangam IGE yéen yéen a may président de la république ne ko yaa leen di yónni soo leen yónnee buñ dikkee bu noo joxee rapport bi ñun may nañ la nga xool ci li la neex bu la neexee nga classé bu la neexee nga yóbbu justice parce que yow yaa décidé ne am na ñoo war a sanctionné par voie pénale ak ñoo xam da nga leen sanctionné par voie administrative. Hmm. ay ay ay ay sanction administrative dafa hmm. mais bu la neexee nga ni man li ma doon gëstulu gis naa ko denc naa ko. kenn mënu ci dara bu ngeen bëggee nag. kon loolu prérogative njiitu la mais nag léegi la Sénégalais. mais est-ce que erreur hmm. boo taxawee loo xam ni loi moo ko nangu constitution moo ko tëral. boo ko bëggee changé da nga lii. mën naa cee def ay marche citoyenne mën naa cee pousser ba ñu dem ba soppil ma lii nga xam ne bi moo fi taxawoon soit ñu soppi ko par voie parlementaire ou bien ñu defaat référendum dindi ko mais tant que defoo yooyu nungul mu mel ni taxoon nga wote ko. kon est-ce que du texte yi la ñu war a tëggaat. waaw dama naan réforme moo tax man la réforme. dafa war a am bu ñu gisee ne suñu justice. xam nga justice bi fi ne gars yi réforme réfléchir nañ ci. ba proposer ay réformes ci assise ak affaire yooyu yëpp mais li des. moy bu defee dafa nek un consensus global nañ ko appliquer buñ ko appliquer ba mu changer texte yi bu ëllëgee nit ñi mun a wax mais tant que defoo réforme changer woo li existé wuro ci ko wax lu mu wax day tegu ci sa kaw munoo ci dara tant que nag amoo comportement citoyen boobu réew mi du mëna dem monsieur ministre